ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien fay seede loo xamante ni nii eh, ndam la ci ñun ñi nga xamante ni ñoo jógoon di ko xeex ngir que garab bu mucc ayib garab goo xamante ni nii am na autorisation pour dugg fii pour que garab googee sénégalais yi di ko mën di ko fajoo donc li ñu taal valeur un milliard trois cent et quelques millions de francs tey suñ ko bàyyi woon mu dugg ci dëkk bi moo xam Touba moo xam fu ti ne parce que garab ni nit di voyager la garab di voyager donc loolu li muy indi ci yàqute li muy indi ci loraange kenn mënul xam nu mu toll. je pense que nekkul tey pharmacien rek moo war a jóg xeex lii c'est vrai que ñun la yàlla dogal ñu jàng ko muy suñu xam-xam également yoon teg ci ñun ne ne garab kenn mënu koo jëfandikoo ku dul pharmacien donc su ay nit jógee nii pour ñu am xaalis il faut que ñu dem di jaay ay garab je pense que loraange googu muy jur ñun ñëpp ñoo ko a xeex.